أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M Media Group nuuru daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc ñu di leen ziyaare nag ci weeru sell wu tedd wi ñu nekk ak guddi gu màgg gi ñu génne di ñaan luñ ci def ci ak jaamu yàlla rek yàlla na ko yàlla nungul fulal ñu ko defal ñu ko ay leer fajal ñu ci suñuy aajo zahiran wa baatinan waaye tamit luñ ci def ci ay rëcc rëcc rek lu nu yëg ak lu nu yëgut lu nu xam ak lu nu xamut lu nu taag lu ñu taag lépp yàlla na ko yàlla jéggal ci yërmandeem ak ndimbalam ak tawfiixam bañ ñu caa topp dara di jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon ñuy jël nuyoo bi rek ak ziyaar bi di ko teg ci loxol kilifa gi rek ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ñaan yàlla yàlla yàggal ko ci suñu kanam bu baax a baax a baax te mu jot li ñu nuyoo boobu ak ziyaar boobu mbooleem mbokk yi nga xam ne yii ñoom lañu bokkal liggéey bu sell bii nu yàlla defal muy tawfiix ju rëy rëy rëy muy liggéeyal maam xaadimu rasul ci waaram wii yàlla nañ ci yàlla doole jàppale dafa ñu julli koy suñ jotu di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jéggalu bu baax na xam naa xat-xati jamono ji rawatina guddi gàmmo gi ci naaje ci wàllu fatwa bi tey jii xat-xati jamono ji rek waaw waaye ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ko defee rek xam naa dañu jéem a seet li nga xam ne lii moo fi jot a rot rek ci ay laaj ñu jéem cee tontu suñu kemtalaayal kattan ci lañ ca xam ci ci gëstu ci wàll woowu kon laaj bi ñu jëkk am tey mu jóge ci soxna Asta Faye ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel di ko gën a ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla defal ko taw gën ko defal taw fi yax di ziari sëriñam ba Cheikh Dia Mouhamadou Dia ñoo leen di ziar bu baax a baax ak mbokk yi nekk biti réew yépp jullit yi taalibe yi yàlla na leen yàlla defal tawfiix ak xéwal ak mucc ba ñu dellu si waat ci réew mi te gën a mën a jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax bàkk sew xadim soxna astafay dafay laaj ne day laaj ashakku fi adadi rakaati baada salaam dafa ay yoo xam ne moom daa julli ba pare masalan bu doon ni julli timis la muy julli ba pare ba sëlmal léegi nag di sikki sàkka naan man ndax julli gi maanaam rakka yi mat na wala matut loolu lay laaj lan mooy àtte bi ci julli ba pare ba sëlmal di sikki sàkka di bay na bay na maanaam limab rakka yi mat na wala matut dañ ko naan fala athara li shakki fi tilka salaati wala yaltafitu ilayhi wasalaatu saxihatun wala tuaadu loolu ku mu dal ci julli maanaam ki julli ba julli gi noppi muy xalaat rakkaay mat na wala matut day jàpp rek ne rakkaaya mat na ndax ne ne loolu maanaam sikki sàkk googu mu sikki sàkk ginnaaw bi mu sëlmalee ne na loolu maanaam amul benn jeextal ci julli googu maanaam du ko yàq daal du ko defee day bàyyi loolu muy sikki sàkk rek te jàpp ne moom julli googu wér na waaye julli googu kenn du ko baamu kon julli googu daal lu wér la na jàpp ne moom rakkaaya mat na ginnaaw sëlmal na te mu xam ne julli ga wér na waaye du ko baamuwaat loolu nag su fekkee ne da ko dal ci biir julli gi njëkk muy sëlmal maanaam di julli ci biir julli gi muy sikki sàkk ndax rakkaay mat ñaata rakkaay laa julli ñaar laa julli wala ñett su boobaa moom dañ ko naan da ngay jàpp rakka li gën a néew nga jàpp ne loolu nga am ci ay rakka bu ko defee nga mottuli sa julli masalan bu doon ne ci biir julli gi la sën malagut muy xalaat ñaari rakkaa la julli wala benn na jàpp ne benn la julli wala muy xalaat ñaari rakkaa la julli wala ñett na jàpp ne maanaam ñaari rakkaa la am bu doon ci biir julli gi daal moom day seet da gën a néew rek mu jàpp ko ca rakkaaya te wóyal ak julleem waaye jéem dem na ba sëlmal ñi jàngale fiqh dañ ne sikki sàkk boobu moom jéem sëlmal rek maanaam amatul benn jaxtal ci julli gi na jàpp rek ne julli ga wér na waaye du ko baamuwaat beneen laajam bi ci toppaat moom as safay ba tey day laaj ne hal yasjudu wala hal yusjadu li sahwi fi nafli ba tey mu laaja ne ne ki nga xam ne kii day julli julli naa fi la ndax bu ca juumee da koy sujootal sujudu sahwi boobu ñuy wax waaw waaw lañ ko ci tontu dañ ko naan waaw maanaam jullig naa fi la ak jullig farata ñoo bokk ab àtte ci wàllu googu maanaam ni ngay sujjootee sujjootu juum boobu ci jullig farata sooy naa fi la itam boo ca wa- defee luy waral sujjoot boobu da nga koy sujjoot na jullig naa fi la ak jullig farata ku ci juum ñoo bokk ab àtte bu fekkee ne danga wàññi da ngay sujjóot bala nga sëlmal su fekkee da nga caa yokk da ngay sujjóot ginnaaw boo sëlmalee naafi la daal ak julli farata ñoo bokk ab àtte ci wàllu boo dee da nga jamaj juum war a sujjóot ñoom ñëpp dañ leen di sujjóotal beneen laajam bi ci toppaatit muy laaj xukmu adami nutqi bi shahadatayni ba'dal wudu'i ba tey muy laajaat ne ki nga xam ne kii daa jàpp ba pare waaye bi mu jàppee waxut ñaari baati seere yi ndax loolu dina yàpp yàq njàpp ma wala boog loolu lan moo di atteem loolu it lañ ko ci doon dañ ko naan laa xaraja fi zalika waaye qad xaala sallallahu alayhi wa sallam man tawaddaa fa asbaga alwudua thumma xaala ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futtihat lahu abwaabul jinaani yadxulu min ayihinna shaa day laaj ne kon kii jàpp ba pare te waxut ñaari baati seere yi ndax dina yàq njàpp ma wala lan moo def àtteem dañ ko naan jàpp ba pare tuddoo ñaari baati seere yi du yàq am jàpp maanaam yàqu ca dara waaye nag jàpp ba pare wax ñaari baati seere yi dafa am solo lool dafa am tuyaaba lool dafa baax lool ndax seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne kii jàpp nga te nga rafetal njàpp ma maanaam jàpp ko njàpp mu sëkk nañ la ko digale ginnaaw bi nga jàppee ba pare nga ne ashhadu an laa ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nee na ñaari baati seere yi boo ko tuddee ginnaaw bi nga jàppee ba pare nee na dañ lay daal di ubbil bunti àjjana yépp yow nga xool ban bunt moo la ca soob nga dugg ca jaar ca bunt boobu dugg ca àjjana jooje nga xam ne moom nga tàmm kon dafa nekk ngëneel bu réerée rek ñu di ko wax ginnaaw bu ñu jàppee ba noppi waaye nag boo ko waxut itam maanaam du yàq ca njàpp ma dara maanaam du ca yàq dara waaw yàqu ci dara beneen laaj bi ci toppaat Papa Mor Ñang moo ko fi yónnee moom itam Papa Mor Ñang suñu rek suñu xarit suñu wëllëre ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla rek ci passeef bu mu am ak bëgg lu baax yoo xam ne ci loolu rek lañ ko mas a xam wax dëgg yàlla ñu koy roye seen waajur lool lool wax dëgg yàlla mu bëgg lu baax lool yéene lu baax lool bëgg a def lu baax lool yàlla na ko yàlla jàppale ba lu mu ci bëgg a def rek ci lu baax ci lu mu bëgg a liggéeyal islam rek yàlla di jàppale la ko ko defal ñu ko ñun ñëpp di say di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pàmmoor ñag moom dafay laaj maa xukumu man sallama xabla imaamihi sehwan dafay laaj ne ki nga xam ne ki daa nekk ci julli mbooloo dañ ko jiite waaye ñoo moom bi ñu jullee ba toog maanaam dafa jëkk a sëlmal imaamam maanaam ne leen loolu lan mooy atte bi kii julli jëkk a sëlmal imaamam kooku lan moo def atteem dañ ko naan man sallama qabla imaamihi sahwan fa innahu yu'idu niyyatahu lissalaati wa yantadiru xatta yusallima imaamuhu thumma yusallimu huwa amma amdan wa tabtulu salaat dañ ko naan koo xam ne kii da nga jëkk a sëlmal sa imaam te maanaam njuumtee tax nga def ko ne ne da ngay daal di fasaat yéene julli ga rek àndaat ak imaam ja xaar ko ba mu sëlmal nga doga sëlmal maanaam day fasaat yéene ji maanaam duggaat ci biir julli gi daal di toog xaar imaam bi bu sëlmalee mu daal di sëlmalaat ne ne nag loolu ki ñu koy may mooy ki sëlmal njëkk imaamam waaye ci njuumte la ko defee maanaam dafa juum def ko waaye na nag ne ne bu dee da koo tey maanaam nga xam ne moo ko ci jublu ne damay jëkk a sëlmal sama imaam rek ci tayeef ne ne su booba bu ko tànnalee boppam rek maanaam su sëlmalee moom jullim googu day yàqu kon daal ki njëkk a sëlmal imaamam su ko teyut ne ne na fasaat julli ga la ca fa na ko fasaat yéenee jàppaat julli ga xaar imaamam ba mu sëlmal mu daal di sëlmal bu fekkee ne njuumte la waaye su ko tayee nag nee na day yàq julli ga beneen laaj bi ci topp yaakaar naa mooy bi mujj ci laaj yi tey yi mooy soxna ci banjaay moom itam moo ko fi yónnee soxna si ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom itam wax dëgg yàlla jàpp ci liggéey bi lool bàyyi ko xel lool wax dëgg yàlla di dundal daara ji bu baax a baax ak émission bi rawatina soxna ci ban ne léegi may laaj rek wàllu naafila jamonoy fajar me ne moom day def su jógee suñu noddee nodd ak yeete gi mu daal di def ay naafila suñu noddee salaatu mu daal di julli ñaari rakka daal di toog nag di xaar julli farata gi mu julli suba gi ñu ne ko maanaam noonu waroon ngay def aha kay noonu muy def baax na saa bu la neex naafila moom waxtu woo xam ne wi dagan na naafila rek su la jàpp ndawee su la neexee mën nga ca naafila lu la soob saa bu ñu noddee suba noonu muy nodd ak yeete gi loo mën a naafila ci ay rakka bu doon ni day mat junni rakka it loolu may nañ la nga mën koo naafila ma ngay nekk ca yéene ji rek bu ko defee bu fekkee ni da nga julleen ñaari rakka bala ñuy salaatu nga yéene ci mu doon jullit fajar waxtu woowu jullit fajar la mooy ñaari rakkaay fajar yi su fekkee itam da nga naafila rek nga xam ne ak naafila rek nga ci jublu maanaam julleegoo ñaari raakaay fajar yooyu nga xam ne da ngay xaar kon ba ñu salaatu bu ñu salaatoo bala ñoo julli julli farata gi nga julli ñaari rakka yoo xam ne naafila la doon nga yéene ca ñaari rakkaay fajar ya su ko defee suñuy julli julli suba ga wala su nga doog a mën a julli julli suba ga muy farata ga waaye noonu muy def baax na ba bu ñu noddee daal bu la neexee mën ngaa naafila lu la soob waaye ca yéene ja rek waaye bu la neexee itam nga daal di yéene julli ñaari rakkaay fajar bala ñoo salaatu su ko defee suñ salaatoo ñaari rakkaay fajar yi doo ko baamuwaat waaye nag da ngay xaar rek ba julli waxtu julli suba ga jot muy farata ja nga daal di julli ñaari rakkaay farata yi bu ko defee noonu daal lañ ko defee kon noonu ngay def baax na naafila yooyu ngay naafila bala ñuy salaatu yooyu baax na maanaam te yéene jëla rek soo ko yéene mu di naafila lu mu bari bari baax na waaye itam bu fekkee da ngaa bëgg mu doon julli ñaari rakkaay fajar yi da nga ko ca yéene bala ñuy salaatu wala nga xaar bañ salaatu nga julli ko yéene ko mu ñaari rakkaay fajar yi nga bëgg a julli ñaari rakkaay farata yi loolu yàlla dana dana dana tawfiq bi jay seena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam